maa ngi lay fay di fay ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan di ndokkale julliti ci at bu bees bi ñu dugg di ñaan nattu yi gàllankoor yi musiba ak balaa yi war a ñëw ci at mi yàlla nañu ci yàlla musal te bum ñu nattoo lu ñu àttanul di ndokkale ñi ko fekkee di ñaanal ñi ko fekkewul yàlla jéggal te yërëm leen di am mbégte ak kontaan teewaat file beneen yoon ci kër gu mag gi la di people 221 di sit bu am crédibilité waaye site bu am détermination muy ay ndaw ñu déggoo bëggante te yàlla tax fonk seen liggéey fu yàlla tudd ndimbal ci alquran boppam la fay teg ndax yàlla rek a mën a dimbale nit maa ngi leen di dénk yàlla yal na leen yàlla dimbale surtout Ablaye. am na solo Ameth euh, tey fi may njëkkee fan yee passé Kaliphone génn def benn sorti di xamal gars yi que ni li ngay jaay dara baaxu ci ay ah kii ngay jël affaire bi ñu doon sax xaw ma eto eto garab boobu. ngay jël. di ko indi fii waaw di ko indi Sénégal di ci taf say plaque di jaay. que ni daal li ngay jaay dara baaxu ci xawlaa weli daal naka nga jàngatee mbir moomu. waaw nit moom bu wax jógee dañuy seet kan moo ko wax balaa yàlla doon yónni yónnantu bi daf ko may njub ak mbaax goo xam ne màkka ñoo dajee tuddee ko muhammadul amin ku ñu wóolu ki hmm. moo tax bi mu ne yàlla ma yónni rek ñi bëgg yàlla yëpp gëm ko wax baax na lool waaye kan mooy wax dafa am importance. Mm-hmm. waaye wax ji ci Kaliphone la jógee donc ku ne mën na ko jugeel sa bopp. ma ci taxaw seetlu ñaar nag bu fekkee ne ba muy xaritoog man ci jàmm xamoon na ne lii laay jaay mu noppi kon moom complice la. Mm-hmm. bu fekkee ne dafa xaar ba seytaane dugg suñ diggante bañ xuloo mu wax ko naa fekk la. Mm-hmm. complice mënut a wax lu saf nit ñi. naa fekk xam neen cëram benn ñaareel ba bi muy xaritoo di ànd xaritoo wut ak àndalaa buri Cheikh Ahmed la xaritool moom la xamanteel moom la àndal bu jotee ak Cheikh Ahmed na wax ci Cheikh Ahmed loolooy màndute mais amoo métier amoo fooy liggéeyee nit ki di daan dooleem di commerce nga joteek moom yàq commerce bi même boo waxee dëgg xam ne ne doo nit ku baax wax moom bu feebaree nopp yu koy déglu ñoo war a wér. benn ñaareel ba foog naa ne suma niveau intelligence weesu na garab guy jar mille francs Côte d'Ivoire am tur biñ toll doo dem jëndi garab googu teppi taf di jaayee 25000 jëlee ko ci 1000 francs ba vingt 25000 même bu ma ragalut yàlla même bu ma séddut yowmal xiyaam su ma intelligence war naa weesu kat ne lii may jaay du am continuité su boobaa du jar nga def ci publicité bi nga ci def du jar nga def ci effort bi nga ci def ba àdduna yëpp xam Anda Labouri ndax nit ñi kat dofu ñoom moom seen xaalis duñ gis mille francs di jëndee mille kon wax jooju taxawut waaye lim ñàkk a ñàkk a taxaw dafay jaadu nag buñ la tuumaalee nga diddi tuuma. bu ñu la tuumalee ci wax da ngay dindi tuuma ci jëf commandé naa lu war a toll junne atoote muy 1000 weer bii ñëw képp ku jënd àndalaa buri ma may la benn atoote bu fekkee ne benn leen ñoo nuroo amul benn wutee dama tàyyi taf man atoote bi ñuy jaayee 10 000 3 000 laa koy jaay à parti de mois prochain 3 mil francs léegi au lieu que ngay jëndee vingt 000 da dangay jëndee 3 mil xam nga loolu kenn bañu ko. waaw su boobaa dinaa rey atoote bi. te suma garab gi 24 900 taxul nga am ko te ci yokk ko laa jëm ndax ñi naan atoote xam ne ne dafay métti bopp gravement. xam ne ne dafay joxe insuffisance rénale bu bon soo ko naanee da ngay saw rek continuously xam ne ne ngelaw liy nekk sa dënn bi ngay mun a ngelawal wala géex ngir mun a digérer nice atoote daf koy fàtt ñi koy naan xam neen ko ñi ko dul naan nag xamuñ ko ñoom xamuñ lu may wax. conséquence boobu ak euh, effet secondaire yu bon yooyu ma xam ci atoote tax na ma siixlu koo jaay ndax kat xaalis neex na baax na lool waaye am ko ci deri nit ñi am ko ci wéré di nit ñi man dara jaraluma ko moo tax suma garab dafay faj moo tax day yéeg léegi-léegi mu dox léegi-léegi mu wàcc parce que ku wér dootul jënd mais ñi nga xam ne ñooy représentant atoote ci dëkk bi ñoom suma garab la ñuy naan ndax kat atoote ku ne xam na ne dafa am effet secondaire te naankatu atoote dañuy d'accord ak man. ki nga xam ne naanul xamul nag daf la bañ rek weddi kooku laajuma ko. waxuma ak moom. kon pour wane ne loolu mu wax jàngat naa lu tax mu war koo wax ak moom mooy kan waaye nit ñi ñoo moom seen xaalis du ñu gis luy jar dix mille fii. Mhm. bàyyi ko fa di jënd bu vingt cinq mille. te loolu bokk na ci lu tax ma dagg bépp revendeur bu nekk Sénégal amatuma revendeur xam nga lu tax. Mhm. nit daf daan ñëw ma defal ko publicité mu dem jëndi atoté di ko jaay suma mhm. tax amatuma revendeur. ñeenti numéro yi affiché képp ñooy jaay suma garab ku dul ñeenti ñi ku jënd amatuma ko amoon naa nag ñu daan liggéey ak man. mais dama koo dagg pour sécuriser li ma am. Mhm. pour weddi tuuma waaye pour sàmm wér gu yaramu nit ñi. ndax man am naa fit. bu docteur yi ñuy déglu ci wàllu tubaab amul am naa sañ-sañ bu ñu amul ndax amul benn pharmacie bu ubbi bind ne ku ñëw jënd wéroo ma delloo la sa xaalis bu ñu ko defoon ñoom ñëpp ñu tëj. Mhm. mais man depuis 2019 dama ne ku jënd suma garab amuloo si satisfaction ñëwal ma delloo la sa xaalis te lu wax ji bëri bëri nag kum neex saaga kum neex accusé mais kenn mënut a taxaw ne butéel baa ngi nii maa ko jënd delloo ma suma xaalis baaxul loolu moom may ma ko ku yàlla bind. Mhm. déedéet maanaam nit jënd sax yéex a jot bagage dàq naa ci liggéeykat ndax dama ne ki importance mooy ki la déglu wóolu la ba jox la xaalisam ngir jënd garabam. yéex a jot bi rek dàq naa ci nit. maanaam wax su feebaree nopp yu koy déglu moo war a wér. te docteur yaa ngi fi ñu am kayit mais amul hôpital bu bind loolu ci bunti hôpital bi nit fay na ay 3 millions plus jël niiwam ba pare ñu fayloowaat la kayit ngir nga jot sa niw. nit jënd na ordonnance mu koy naan ba mu indil ko beneen problème xam nga docteur kañ la lay wax conséquence li nga jënd. boo jëndee garab gi ba pare la bind benn notice ci biir na la garab gi soo ko naanee day def lii mais balaa ngay jënd kenn waxut la ko. Mm-hmm. waaw ñàkk a boobu docteur yi ñàkk a ñu ngi koy gis di ko dund te nangul leen ko. waaye boo amee xam-xamu nit ku ñuul te gëm ko ndax man maa njëkk a moderniser sumay garab ba mu am scanner. ci àddina moderniser ko ba muy jaar ci laboratoire moderniser ko ba mën koo jaay Amérique loolu lépp sa moromu nit ku ñuul ki sa moromi wolof du tàcc loolu mais day toog rek tubaab indil ko garab ki koy jaay du docteur pharmacien la mu di ko jaay nga mën koo wóolu jënd ndax ci tubaab la jógee waaye nit ku ñuul ki da nga koy saaga rek ak poser mille questions pourtant am na garab yi dugg ci réew mi balaa ñu koy nanguwaat rey na ñu bari mm-hmm. benn un assurance fayut leen nguur fayut leen amuñ sax justice. kon man dama am sañ-sañ bu docteur amul. am wóolute bi ñi soit déjà sëriñ yi amul ndax man maay sëriñu nante te dama xam ni mu demee. donc suma garab gii gàtt xel ak xamadi dëgg dëgg dëgg dëgg weesuwul boole kook atoote ndax lan dañoo nuroo muy mel ni kon nga ne maag sëriñ diw benn leen duñ benn. donc nit ñi mun nañoo nekk nit. mais la leen di différencier mooy seen personnalité. Hmm. seen intégrité seen xam-xam ak seen am-am moo leen différencier mais nii dem nit ñi moo tax olof mu ne bu ñëpp yemoon cër yowmal xeem am ñu gedd waaw butéel bi lim weex kubéer gi vert bu yemoon ak atoote ma geddu ko waaye nag cin daa bokkul ca fen am na solo Ameth yaa ngi koy wax léegi ma gis sa njaay tey importance bi nga ko jox ak gëdd bi nga ko jox ak nangu ci investir sa xaalis euh, loolu noonu des fois dama naan Ameth est-ce que nekkul li muy jaay nii par rapport ak yenn yàqat li ñuy wax ak gëdd bi nga xamante ni moom la jox liggéey bi. waa gis nga nit sa teraanga da nga koy xam te fonk ko. man ci benn néeg bu ndaw laa dëkkoon bi ma xamee garab gi la am ay appartement fu ma am gan dugal ko di ci wër àddina te du ma ñaan kenn du xam suma soxla ku ma jege ma bokk ak yow suma wërsëg. fii rekk laa ko amee ndax liggéey soo ko soo si investir benn te muy dëgg da lay indil téeméer. Mhm. nga investir cinquante te muy dëgg mu indil la mille. Mhm. ci benn carton laa commencé ba ci cinquante carton loolu xel mu rëy mu ji am jom mu ci am wërsëg mu ngi ci waaye jaay lu baax a ngi ci su ma sëriñ papa alaaji Cheikh Oumar Touré radiyallahu anhu ki dafa ñëw ne ko ñaanal ma Bayra Ndiaye mu ne ko ha barakallah del jege nit ñi di jaay lu baax te yombal njëg li mu ne ko lii mooy Bayra Ndiaye jege nit ñi fu ñu ko mën a disposition disponibilité fu ñu ko soxlaa am ko jaay lu baax mooy garanti njëg lu yomb mooy moins cher moo tax tey Auchan di jaay lu yeneen boutique yi jaayul mais man dama ñëw créer buzz pour sumay garab ci biir buzz bi ma jaay su may médicament ba pare nag di yéegal baar bi rek bañ mu wàcc loolu xel mu rëy la. wërsëg bi mooy jaay nit ñi ñu jënd loolu du ngóora nit defar na bay na ba mu baax mu teg di jaay mu lamb loolu ndimbalu sunu borom la leneen li nag mooy continuité bi depuis 2019 at bu jot da ngay yokk at bu jot da ngay yokk lu tax mooy dafa baax. ndax ab Ablaye mën ngaa déglu publicité mu convaincre la nga naan benn yoon dootoo naan ba àdduna tukki. Mhm. ndax baaxut. continuité mooy tax business di yàgg Coca Cola ban at la woon Sococim ban at la woon 1970 ba tey ciment bee baax. Mhm. donc man damay investir ci sumay garab. dem naa sax ba bugg a taxawal maison de production ngir ñuy filmer garab yi film bu neex parce que vision audiovisuelle vision bi ngay wan nit ki mën na koo xememloo mais wax bi ngay wax mu koy dégg mën na ko xememloo ñaar laay boole. moo tax ma màgg bay publicité Zik FM RFM màgg ba dem TFM seen TV màgg ba dem ci site internet Amérique màgg ba dem ci rajo Amérique loolu visionnaire moo ko mën mais ak produit bu baax. produit bu baax yaa ngi koy wax foofu noonu ndax euh, liggéey bi ak produit bi euh, tey tey tey tey tey maanaam càmbar nga ko avant que ngay jël engagement di ko génnee bitim réew. bu baax a baax xam nga tey am na réew yu sàgganee seen frontière mais am na réew yoo xam ne lu ñu nangu seen doomi réew mën naan rek dafa baax. Mm. ndax foofu sant bu rëy amu fa. alal amu fa askan amu fa dëgg ak yoon rek. Mm-hmm. réew yi gën a rëy ci àddina maa ngi fay dugal suma garab du Canada du UK du Sweden du United States du Allemagne ba ci Chine ñu ngi jënd sumay garab. Mm. pour expliquer la que àndalaa buri bi butéel bee tax ñuy polémique. mais ndax ci àddina mës ngaa dégg coow ci doy waar. mosoo ko dégg. sewdis waaw bii su ma rakk moo koy defar lu sax man su ma rakk bu góor moo koy defar ndax ñun yàlla dafa def ci famille bi xam-xam waaye du xam-xam bu tarde xam nga lan mooy xam bu tardé. oustaz mm-hmm. buy toog naan yàlla yàlla tam yàlla jooju ngay wax mënuñ cee defar jamono dangaa ngaa tardé. Mm-hmm. mais xam-xam bii ñu am. lii famille bi ñoo koy defar muy doy waar poudre la boo xam ne dafay raxas deret di xeex gaaw a daanu di génne constipation waaye bu ñu la lekkaloon lu bon nga naan ko day génn ngelawi seetaane bu nekkee ci yow mu génn. kon dafa am baatin. dafa am baatin buñ ci def di ko maye. maanaam danga koy ja dend naan ko kër gi diis tubéy bi tàng ba pare soo lekkoon lu bon da koy wëccu wala nga dem ko duus. parce que xam-xam da nga ciy dimbale doomu aadama. Mm-hmm. moom lay jaayee 15000 mooy doy waar mooy junnee puus yi. Mm-hmm. kenn mënu laa wax ne fii la jógee bii la nuroog bële la nuroo. waaw bii laa mayoon Kaliphone. moom la génnee ci laay fam wane ko. bii. waaw mu ne do mu ne àndalaa bii doy waar la tudd. moom ko mayoon. waaw xam nga dañ koy tëj nii bu jugee ci laboratoire bi. mais moom bu mu koy ubbi fekk na mu dajee ko ku ko dajji. ba pare am na lu wàññeekoon ku ko naan. bi mu koy sotti tamit sottiwul ko ci douche ci mbalit la ko sotti te am na lu des ndax su caméra bi fayee jëlaatul ko wallahu alam yàlla xam. ah bi nga ko mayoon. bii laa ko mayoon. te biñ taxawee ci kanami àttekat bi mu ne ma ndax kii mës nga ko may ci garab bi ma ne ko man du ma wax sumay client hmm. mais comme moom moo ñàkk sutura ba dem ci internet wane ko ma leeral li xew rek. Hmm. pour wan la ne bii mooy doy waar kenn mënut laa wax ne moom la nuru mais bii. su fekkee xale nga jeune bëgg a rempli yokkaat ñëwal ci biir bul dem ci àndalaa bëri àndalaa dafa am doole pour ñu am jabet la ak ñuy tux ba nicotine bi fatt seen affaire yi yàq poumon yi ak ñi nga xam ne dañoo màggat àndalaa da leen di régénérer ñu dellu xale waaye doy waar moom xale dëgg moom la war a naan xam nga kenn mënul koo nuróolee ne bii bii la nuru wala bële amul parce que bii suñ xam-xam la ñun. waaw ay la nangam la ñuy jël defar ba mu baax ba mu yemook doomu aadama ñu collaboré ci ak ñu xam-xam wàllu doctor bañ xam ne nit mën na koo naan ñuy jaay. d'accord te njëriñ képp la ci nit ñi di am. même jigéen sax nga seere nii wala nga am jëkkër joo xam ne dalay dóor rek ba dangay ngay booy boo ko naanee léegi tey nga rey sa jëkkër. Hmm. pour góor ak jigéen la. BMW. góor meenan woman góor mën na koo utiliser góor mën na koo utiliser jigéen mën na koo utiliser. mooy doy waar pour expliquer la que xam-xamu awra dama ci tollu tak kenn Ablaye xam nga accident am na bu rëy. waaw na kuy accidentel li participer ci accident bi mooy xel mee fa nekkul. Hmm. accident du dara lu mooy def loo warta def am loo war a def defoo ko li mooy accident. Hmm. tey nga gëj daanu. ba mu commencé laa traumatiser. ngay wax ak sa jabar ci téléphone di dawal oto. mën na indi jéyee ju rëy. Mhm. ndax soo paree rek surtout su ndaw si saay saay mën na la wax loolu loo xam ne da ngay jàdd yoon te doo ko tey. Mhm. moo tax bokk na ci code de la route sooy dawal doo wax téléphone. waaw lañ ciy bañ. mooy ka ngay waxal téléphone bi mën na wax lu participer sa xel. Mhm. imagineel nga doon daw 160 ñu ne la sa jabar dee na. Hmm, dëgg la de. da hmm. kon naan ci garab yi sax mën na musal nit ci accident. ñi nga xam ne nag ñoo dee ci yoon bi. Hmm. maa ngi leen di jaale bu baax. waxoon naa fi ca tëggam kasorol yu njëkk ya. ma leen du gàng bu baax ci réew. kasorol yi kasorol te nit ñi seetlu ne ne saa yiñ ko defee bu paasee ay jéeya topp ci. ñii nag gëm neen ne yàlla mooy dogal kasorol mun taree kenn ñii gëm neen ne dëgg la naam yàllaay dogal waaye dogal bu nekk dafa am sabab looloo tax ñu mën a jàpp nit ngir ne yaa rey nit te alquran def ne yàlla mooy reyee mooy dundale man dama gëm ne yàlla rek a ma mun a rey mais tey boo jëloon fetal dóor ma ko yàllaa ma rey de waaye den lay jàpp ndax deey su ma dee ci sa sabab la waa ñaar ñi gëm ne kasorol moo ko waral gëm naa leen nangul naa leen ñi gëm ne du dëgg yàlla mooy dogalit nangul naa leen waaye lu wér wóor mooy neen laaj ca tëggum casserole lan la mën a faj. loolu yow lañ koy laaj. fan lañu ko islaam jàngalee. fan lañu ko aada jàngalee ak yan gàllankoor la mën a am buñ répondre question yi rek dineen xam ne dajaloo di tëgg casserole ngir am lu ñu naqari dajaloo di ñaan ci yàlla moo ko pu doole. ndax Mawlaaya Souleymane bi ko Maroc bi ko français bi génnee Maroc naar yi dañoo dox ba màkk rek ti jàpp buumi kaaba gi di ñaan yàlla. Mhm. Baye Niass ba mu déggee seen ñaan yi dëggal na ko lan nga gis ne bu ñu ko defee dina neex jullit ñi mu ne dinaa la wax loo xam ne dina neex jullit ñi waaye dina musal France mu ne ko lan mu ne ko buur bu ngeen génnee Maroc delloo leen ko. Mm. jullit yaa ngi njàpp yu tooy di ñaan ñaan yoo xam ne bés bu nangoo France ala ko ñu dellowaat buur bi jàmm am. Mm-hmm. yonentu bi mu doon bind leetar buur yi àddina bi mu demee ci buuru Amérique James de second daf ko ne weddi diwuñ la waaye duñu la xeex. yonentu ne yàlla na ngeen barke paaw na ëpp doole ci alali àddina seen nguur a gën a dëgër. seen làkk gën a dëgër même première ligue moo gën a neex ci ligi àddina mm-hmm. ñaanab barkeb yonantu bi la mm-hmm. kon man képp kuy tëgg bool nangul naa la sa tolluwaay yaa ko xam mais en tant que jullit rawatina ñi ay suuf yi ñii di taalibe Baye Niass di taalibe Cheikh Amadou Bamba tàmm naa nga jël si ndiidi di ñaan yàlla loola naqari. parce que ñoom jàpp nañ ni casserole yooyu bu ñu koy tëgg pour wane seen naqar ak li xam ne moo leen métti la. moom laa leen nangul naa leen ko fa leen toll mais dama ne man ci suma gëm-gëm. nga am lu la naqari demal ci yoon soo ci óoluwul yoon tàllal sa loxo ñaan yàlla lan moo dàq taalibeeb Cheikh Ahmadou Bamba bu jàpp téye si ndii di ñaan yàlla lan moo dàq taalibeeb Baay bu jël rabbal ibaadi wala bismillahi askuril murida lan moo dàq taalibeeb Maodo bu téye mimiya lan moo dàq taalibeeb bu nekk ci laa la illallaah ba yaanu ba xol ba neex mu wax yàlla soxlaam loolu kun fa yëkkun la lii laa gën a gëm man ci tëggum bool. kon d'accord ci ak casserole bi nii nga xam ne mooy am. su ma d'accordoon tëgg musuma tëgg su ma d'accordoon ne suma ma jabar ak su doom tëgg leen musuma leen a tëggloo. Mhm. man d'accorduma mais ñàkk a d'accord du tax ma respecté ki ko def. est-ce que après loolu noonu du travail ci xelu euh, ñenn ci sénégalais yi parce que comme ñaare heure bu amee rek après pendant de des des des semaines daanaka ay jéey day am ba ñu bari sax dañuy dem ba dañuy am habitude boobu aussi. xam nga tey mag bi mu ne. boo romboon ay xare ñu rëdd rëdd ne ku ko jéggi dee ku ko jéggi doo dee mu ne dangay ngay ñu ne waaye xale yéen a mën a fen waaye rek jéggi ngir bañ a dee. Hmm. parce que xamoo lu xale bi xam. beneen bi ñu ne biddaa bu màgget jar naa bàyyi xel. it's very important tey ñu ne buñ tëggee lii xew ñu tëgg yàlla dogal dara xew. ñu ne buñ tëggaatee dara xew ñu tëggaat ñu defaat ko trois fois même bu dul dëgg jar nañu moytandi ko ko ngir sàmm dëgg. Mm-hmm. islaam moom li leer leer na te du lëndëm ba faw li lëndëm lëndëm na te du leer ba faw liñ la moytuloo mooy li ci diggante bi ndax xamoo fu mu la mën a yóbbu comprendre li xaraam moom xaraam na dootul dagan li dagan dagan dootul xaraam mais li ci diggante bi den la ko moytandikuloo yow jullit ngir xamoo fu mu la mën a yóbbu tëgg bi dana wala du waaye saa ñu tëggee gis ne am na lu xew ba ko nag day gën te neen remplacer dajaloo huit heures di tëgg ñu ne huit heures dañuy wax laa ilaha illallah ba neuf heures. dëkk bi yëpp foo tourné dégg laa ilaha illallah ku sa xol yaano ba nga yëg ne yëg nga ci pays yàlla bi rek nga ne yàlla wàcceel Macky Sall yàlla falal Sonko billaay looloo gën a gaaw ndax laa ilaha illallah allahu ak salaatu ala nabi boo ko defee yàlla xoolut noo dalay nangul. ndax allahu ismu saatu la laa ilaha illallah sirru haqiqa la euh, salaatu ala nabi mooy njëriñu yàlla ci biir yàlla. ndax ndax tëggu bool baax na ci dëkk. waaye mënta baax tëggum bool développé wul économie développé wul économie <laughs> yokkul éducation yokkul diine te lor mën na caa am jamono bi ngay tëgg bu dee am na koy déranger mënta nelaw te dafa naanoon garab wala nga tëgg tiital ko tension yéeg mu dee nooy def waaye laay laay laa ku ko bañ ci dund booy dee bëgg ko. Mm-hmm. te ku mujj sa kàddu nga dem àjjana yi gën a kawe. man daal lii laa gën a gëm man en tan que suufi en tant que jullit lii laa gëm. waaw ah, man su ma na naxar damay daanu mbaama tudd yàlla képp moo mun a yëg moo mun a dalloo. waaw lii daal laa gëm mais nag ñiy tëgg bool respectel naa leen seen choix àdduna pour mu dem Ablaye du loo d'accord rek baaxut. da ngay bañ a d'accord ba pare respecter choix wu nit ñi. loolu intelligence la mais humilité la mais humanité la. man du ma murit du tax ma ne murit dafa bon. naan nangu seen mbaax. man du ma chrétien du tax ma ne chrétien dafa bon naan nangu seen mbaax. waaye nag man li ma doy mooy diine lislaam tariqa bi ma doy mooy tariqa cheikhu tijaani radiallahu anhu yoon bi ma doy ci biir tariqa mooy faydatu ibrahimiya waaw ci biir faydu bi nag Cheikh Omar Touré ma doy xam nga c'est pas méchant dëgg lii mooy àddina mm-hmm. mais du tere nag nga baaxal ku yàlla baaxal du tere nga suturaal ku yàlla bonal. waaw loolu nit ku baax rek moo ko mën. ko mu mel ni sénégalais intéressé nañ ci garab gi ba nga dem ba leen utal yeneen lu ci mel ni régu ak li nga xamante ni mooy sox mu mel ni développement aussi tamit am na ci. waa xam nga man dama woote ne na ma xalifa général yi woo dénk ma wàllum awra ma yoreel leen ko ci diine. Mm-hmm. na ma nguur gi woo dénk ma wàllum awra ma yoreel leen ko ci administration. Mm-hmm. na ma ndey ji réew yi woo dénk ma mbirum awra ma yoral leen ko ci aada ak cosaan ndax dama koo xam bëgg ko mën ko ci biir xam boobu nag bëgg naa tey boutique noo fay duggee di jënd batterie wala nga jënd chewing-gum wala jënd pain wala chocolat man dama bëgg tey maam ay garab yoo xam ne tey boo bëggee yokk awra bi mu yokk léegi am boo xam ne pour weer am boo xam ne tey soo bëggoon a sa làmmiñ bi gën a neex nga mën a fóon bu baax am boo xam ne boo bëggoon sa loxo gën a nooy nga mën a raay am boo xam ne boo mënoon a euh, kii sa clitoris bi gën a rëy xam suñ koy màcc mu neex man lépp laa bëgg lu jëm ci wàllum awra moo tax dama commencé rek mais bëgg naa fukki produit yu wuute. nga xam ne tey bu la àndalaa neexee nga naan su la doy waar neexee nga naan su la bii neexee nga naan parce que mbirum awra warul nekk benn option dafa am ko gàttale am ku le am koo xam ne ku muy séyal li mu yor dafa rëy kii le kii nooy le kii waw le kii dëgër le kii nàngam awra yi dafa wutee donc différent awra yi ma xam dem na ba ci 17 awra 17 waaw 17 yu wutee donc war naa am 17 garab awra soo ñëwee ma ne la waayoo nooyam le nga ne ma ni ma ne la jëlal bi ñaata temps ngay def nga ne ma nangam ma ne la jëlal bi maanaam boutique awra laa bëgg a ubbi Euh, sex shop ni mu amee Amérique ko awra nga xam ne tey dangay am possibilité tey bu sa awra amee problème nga mun a waaxu ñëw ba ci man ma tëj suma bureau comme ni nga ma fekkee ci bureau bi nii na ma Cheikh Ahmad lii a dal. waxtaan ak man ci sutura ma tontu la ci sutura nga génn dem. Mm-hmm. bu laajee garab ma jox la garab bu laajee entrainement ma ne la ah bul jënd garab yi xaalis neex na waaye nit a ko gën. Mm-hmm. del entraîné bu laajee lekk bu baax ma ne la li ngay lekk moo tilim del lekk lu ndax hygiène. ak entrainement soo koy def soxla woo suma garab. Mhm. Ablaye waxtaan wax dëgg ca la. waaw ah, lii de yombul ci jaaykat. déedéet ngay lekk lu baax di tëdd temps di entraîner set looy doyee àndalaa buri mhm. mais nag bu fekkee ne mënoo lekk lu baax bu fekkee mënoo dëñ ci stress bu dee da ngaa tuuti la fa nga ko soxla du ñëpp a soxla àndalaa buri mhm. moo tax nit dina indi xaalis war a jënd ma waxtaan ak yow la déedéet sa koy bi ndawul yow yaa mëntakat ma la defeel nii defeel ni boo demee ñëw na ma noon ndaw si kontaan na ma ne la big bind rek leen koy doyee. Mhm. fekk encre baa ngi wàcc ci big bi rek mën naa bind. <laughs> c'est pas importance big bu ruus bis bu nangam big na mën a bind rek. Mhm. awra bu paasee baaraam bu mag bi rek baax na. léegi nag ci yow la des. awra lu koy contrôler du ndigg ndigg lu koy contrôler du biir biir lu koy contrôler du xel. Mhm. xol ah waaw su xol bi amee problème wala xel mi dem wala biir bi tilim doo mën a dem. mooy waral góor goo xam ne bu poussé ñaar rek. Ah. dootul mën a jël loxo yi tiim la dalay teg dënn bi. ngay nokkat rek donc faaw ñu mën a laal mais tey ku sa lekk baax sa tëdd confortable mm-hmm. ngay entraînement suba ngoon soo naanee àndala da ngay rey nit mais mën nga lekk lekk bu baax mën a tëdd fu baax di entraîner ta jabet waaw nga tension. Mm-hmm. luy solution bi. àndala àndala donc pour wan la ne euh, lii ma indi nii garab bii di soq bii. Hmm. cinquante mille lay jër. bii waaw. laaj jaay naa ko benn góor mu ni ma bii tudd soq wal la tudd wal <laughs> bii mooy jër fukki junne. Hmm. maanaam moom ñetti yoon nga koy naan ci semaine bi boo amee jigéen ak boo amul jigéen bu fekkee ne yow danga nga foo ba gaaw a daanu. Hmm. ngay waaj takk jabar pour la reinforce sa bopp. Ah, renforcer sa bopp. Mhm. bii ngay naan. non boo jàppee xale bi di nga ko rey. boo ko naanee trois fois rek saye. non dee na lii dafa xàcc nit mais nag da ngay nuggal ndox nga sotti benn kuddu ba mu wàcce nga naan ko bu lekk sunguf bi su jàllee rek problème la. Ah, am na ku ko jàllale na ma ñetti fan mënuma daanu ma ne ko wax naa lu leer mu ne ma non waxi jaaykat laa ko foogoon ma ne ko man du ma fen Hmm, dëgg la dama dëggu ci li may def ndax sénégalais boo ñëwee fen ko mën na la gëm de. Hmm. waaye waxtu ba nga ko fen bu jotee waxoo ko lépp loo waxoon dëgg mu ne da ngaa fen. Hmm, waaw man dama bañ ñu yeb ma. waaw ci dëgg laa ko bañ mais ku mu neex rek yab ma ku ma seetaan rek mën nga wax lu la neex mais ci dëgg-dëgg nga jëflante ak man yab ma. may ko ku yàlla bind du mbokk du xarit du am di jàmme donc bii mooy soq mooy jar cinquante mille. waaye Ablaye. waaw dëgëral baax na torop ci la bokk. waaw ak rëyaay ak yaatuwaay. am na solo de. léegi nag am na ñoo xam ne ñoom yàlla moo leen bind ñu am hémorroïde hémorroïde bi di xàcc seen siddit bi muy delloo seen awra am na ñoo xam ne yàlla moo leen bind seen awra dafa sew am na ñoo xam ne yàlla moo leen bind mu gàtt tuuti buñ taxawalee sax dangay ngay fa ne taxawaluñ. Mm-hmm. loolu lépp luñ mun a faj la pour ma wax la benn exemple bu ndaw tey dangay am sa awra mu yem nii. Mm-hmm. nga taxawal mu yem nii te benn awra bi la te naanoo benn garab lan moo tax mu rëy moom leen tuddee koddal soo koddalee luy tax awra bi di rëy suñ tontoo loolu rek dineen gëm ne yokk awra mën naa am. Mm-hmm. li tax mu rëy mooy siddit bi mooy yokkutaay taay. deret di fa daw deret bi mooy guddal awra bi. su sidit bi wàccaatee rek deret ji delluwaat rek awra bi di luus moo tax boo demoon ci géej gu sedd ba génn tiim sa awra bi bopp bi kese mooy rëy mais diggante naq bi bopp bi day sew ba def ay ras-ras ndox yu xorom bi moo ko dugg pour pourtant awra bi demul fend waaye am na lu tax mu wàññeeku mooy po yi ñëw tëju xam nga li ma wax xel nangu na ko. fa leen indee xam-xam bii nag di rëgu nga xam ne diw bii ngay jël diw ko ci awra bi. diw bi dafa am lu ñuul gis nga boo ko yëngalee nii. ñuulaay bi day wàcc. nga tekki ko pomp ko si awra bi raay ko ni nga koy raayee di xàcc soo bëggee mu gudd ba mu tooy xepp après cinq minutes da ngay gis siddit di ubbeeku deret ji di ñëw awra bi di yokk nga jël bii def ko ci bii nag astuce góor la day yokk góor neex neex bii waaw moom ku koy raay boo moytuwul mballuwaale mais boo mballoo ça bàyyil ba sperme bi génn rek nga bàyyi noonu doo sol slip doo sol caleçon. mais day gudd day rey ñoom ñaar laay jaay ku la jaay benn ne suma garab la waxu dëgg huile laa lay jaay ak lii bii man maa ko defar suma bopp. bii maa ko defaral suma bopp jënduma ko ci kenn man maa koy defar fii laa koy defaree. te ensemble bi rek ngay jaay. ensemble bi laay jaay soixante mille francs pour koy gudd rëy mu dëng nga koy neexal ba mu jubaat ci ci ci naturellement nag day gudd rëy ba pare nga attan ko nan ngay def soo ko jëndee da ngay koddal ba pare nga natt fan la yem nga utiliser ko ba mu def nga koddalaat natt fu mu yem lu ci yokk rek maa ko yokk soo doyalut nga ñëwaat jënd boo doyalee bàyyil waaye nag su réyee du ko mun a wàññi. amul benn effet secondaire ndax doo ko lekk doo ko naan gis nga. waaw lii lépp fii laa ko defaree garab yëpp génnut Sénégal secret bu ndaw la rek moom boo ko doon def ci ndaale sax nit ñi ne naan jigéen ñi dañuy rëy la góor ñi rëy la. waaw man expérience bi man xamul sama problème expérience bi foo ko amee. bëgg awra xam ko rek to di ko toppatoo nit lu mu bëgg bëgg ko lu mu bëgg rek am ci njëriñ imagine nga fan la Balla Gaye jaar ba nekk roi des arènes dafa bëgg làmb. imagine nga tey fan la people 221 jaar ba nekk sit bu ëpp doole ci réew mi dañ koo bëgg. man damaa bëgg awra damaa xam awra dama ko ittiwoo dama ko jox gëdd mais nit ñi jënd si den mais may xam-xam. waaw que nit mën nga koo jaay mu baax mu ne la ah, man de xam naa lii. Mhm. man bi ma essayé lii keroog suma jabar dafa daw génn kër gi na gis nga sa yii moom na yem ci internet bu ko indi ci kër gi <laughs> waaw xaw ma loo def waaye yemle woo woon nii ma ne ko suturaal ma nag xale yi dañuy màgg <laughs> donc kon li may jaay man maa ko njëkk a ndax góor la mm-hmm. xel munta may jaay mbirum góor tey góor te ne du ko jëfandikoo. dëgg la buy lor na ma lor buy jëriñ jëriñ ma. Mm-hmm. kon lii mooy régu rëyal guddal lan lay rëyal awra góor lan lay guddal awra góor ensemble baa nekk nii mooy soixante mille francs nii laa koy jaayee lii mooy ensemble bi soixante mille lay jar. mooy rëgu bii mooy doy waar quinze mille francs sunguf la jus d'orange nga koy àndal booleel muy euh, vitamine C nga rëkk ci gënn gi junne yoon mu yóbbul la feebari seytaane ak loo lekk génne constipation raxas sa deret nga taxawal ba bëgg toj dëkk bi bii mooy àndalaa buri magam jëmm ñëpp a ko xam moom ni Youssou Ndour dàqee woy la gëne garab yi bi mooy soq maanaam ku dem ba jeexal bëgg delluwaat xale ku doon mballu nga bëgg a dëgër maanaam ku doon dem ba nga xam ne garab yëpp naan nga leen nga bëgg a faju te doo naanati calmant soq la cinquante mille kon ñeenti garab yii leen am am na ñett yu ñëw nag waaw am naa ci boo xam ne day guddal awra yokk ko ba pare jox la kàttan dans deux semaines la koy def ah. traitement de semaines mais ñëwagul maa ngi ci testé yi may naa ay nit pour ñu test <laughs> waaw ñu ngi xool su baaxee ba baax nga dem man moom ñemetuma testé parce que su ma der yàqu na ci dëkk bi forom bu ñu naan la gaañ bii ni mënee <laughs> mais maa yey mën directeur àndalaa buri soq doy waar réegu warta mën dëgg <laughs> maa mën maa fu doon di am mbégte nag ndeysaan mu ngi noonu ah di teew file moom laa daraloon li may wax rek wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara parce que yaakaar naa ñun ay nit a ñuy suivre tey bu doon boo dugalee ci garab yi euh, mu def na ko surul noonu yaakaar naa police lay njëkk a woo ni la lii ngay publicité wala nga xëy am ay plainte waaye bañ ko dalee liggéey ba tey mosuñu cee am benn retour bu négatif. au contraire nit ñi lay a rey numéro amet numéro amet numéro amet donc kon li muy def baax na li mu ki bala ngay yëngu ci benn mbir wala bala nga koy jaay da loo xam ne day uh-huh. loo xam ne tey Sénégal nga ko commencé mu dem ba wër àdduna dem ba dem ci réew yi gën a mag réew yi nga xam ne moo gën a sensible donc kon yaakaar naa loolu moom mbégte rek ci nekk ak yokkute uh-huh. amet kontaan naa ci dalal la fii sama xarit bi maa la gën a bég di wane ne amatuma benn revendeur ci réew mi. waaw ku la ne day jaay suma garab lu mooy ñeenti numéro yi affiché waxul dëgg. Mm-hmm. yii rek moo koy jaay. Mm-hmm. képp ku ci jënd nag maa gàddu garanti bi. Mm-hmm. maa ngi leen di gërëm yéen ñi ñam garab gi te xam ko. maa ngi leen di ñaax yéen ñi nga xam ne nit ki day ñëw di def promotion garabam di liggéey. yéen amu leen benn liggéey lu mooy toog ci clavier yi di saaga ka xaste ka dingat mhm. maa ngi leen di masaw gëj a daanoo ak pauvreté rek la waaye borom alali taluñ ma ñi am daanu yu neex taluñ ma comme nag gëj a daanu bi du suma affaire seen affaire la ak pauvreté bi yàlla na ngeen génn ci ñàkk te am daanu yu neex bu boobaa rek mu changé jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu te moment bi ngay commentaire di saaga nit ki nit kaa ngi am ay vie di jaay garabam di gën a riche. Mm-hmm. nga koy gis Amérique tey suba dem na Makka suba yóbbu na papa Makka tuba jënd na oto. Mm-hmm. tabax na biroom mu ngi avancé rek yow daaw ba ren yaa ngi koy saaga rek di commentaire rek di wax lu ñaaw. dafay jaadu nag nga seeti li nga war a def comme moom ni mu seetee lu muy def ba nga koy seetaan. Mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. am na solo mu ngi noonu ah jërë ngeen jëf yi nga xam ne yéen àndoon ak ñun du ñu di leen jaajëfal di leen jox yeneen dig daje suñu émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.